asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi Senfootball TV nuyu naa leen bu baax yaax leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo euh, mbokk internet yi dañuy ñëw rek euh, wax si kii di euh, Tidiane Diallo je pense que ñëpp gis ngeen information bu comme quoi seen Diallo Dia man dona naa émission mais jeexal ma euh, TFM donc loolu nag c'est daan nous expliquer propos ni ñu toogee Amara Diouf blessure bi contre Japon c'était tellement intéressant mais après euh, yeggal ma ko léegi moment bi muy wax si ci euh, si si boy bi le man voilà côté bobu dama karaté raté du coup tey jii laa que xëy comme ñep ne comme quoi Serigne Diallo Dia moo xamale ne boy bi après ñu tok non match parce que France ak Sénégal ñoo de woon donc ñep yéen a ngi faté fàttaliku tiré but Euh, booy ñëw si moom nekk non man moom bëgg naa jouer Sénégal quoi bon affaire bi jàngat bi mu si am mën naa ñaari jàngat d'un côté dama naan booy na courage il est courageux de l'autre côté il est patriote mais de l'autre côté aussi pour man Serigne Saliou Dia aussi mënoon na ko nëbb quoi parce que aussi euh, mën na ko gàllankoor France bul xam nuñ ko mën a defal mais bon du ko yaaxal dara si du moment où bu fekkee Serigne Saliou Dia rek woo parce que boo am bu fekkee Serigne Saliou Dia woo ko ni parce que moom la moom France woowuñu ko mën na ñàkk gum ñàkk ci yéen quoi par rapport ak carrière parce que lii il faut nga am fit am courage bëgg sa dëkk moo tax ngay def souvent yàgg naa leen ko wax de samay wax moom xam naa ne du gaaw a dañ quoi parce que yàgg naa leen wax ne booy bëgg nañ ñëw dañu gisul ku leen woowul nañ waxante sëñ Thialou Dia boo ko moom mosul woo booy bi mos ko woo maanaam mos ko laaj ndax ba xam ndax bëgg na wala bëggul jéemu ko sax foofu laay waxee souvent su samay vidéo dama leen koy yàgg wax dama leen koy yàgg wax wax naa leen ko waxati ko na leen booy yi ñoo ngi Instagram ku si bëgg sax nga tànn sa sens man day damay dem wax ak ñoom ku ma su waxal di si ëpp dañ ne man waaw bëgg naa Sénégal mais aussi bi deuxième question bi mooy mas nañ la dañ naa mos ñuy contact maanaam gars yi duñ jéem a contacter sax li ñu am si booy bii dafa du booy yëpp ñooy def lii nii Sénégal li muy am nii c'est très rare jour yi ñëw rek comme Aliou lii la bëgg par exemple ñëw ba si yow ne dama bëgg Sénégal et c'est pas aussi évident xëy na booy bi bu ma Sénégal ak France bu ñu dajale du ko wax wala du ko def sama genre lay ñëw wax ma ko wala mu wax ko famille am wala mu wax ko agent ay agent ñëw si man wax ma ko ma ñëw toog samay vidéo wax ba tëdd si suuf taxul ñu woo ko après ëllëg si biir mu dem France ñu ne waa yow booy yaa ñu sonal yaa fa doon taxaw naan booy bi bëgg na Sénégal nangam nangam xam nga après booy te doo xam vraie histoire bi sax yow mii di ñëw di critiquer di commentaire loolu fekk la vraie histoire mooy que bëgg na mais sa fait ko si jour ma Sénégal nangam nangam après ma la mais le milieu xam nañu bu baax donc booy bi il est courageux te aussi il est talentueux je pense ñëpp yéen ñëpp ngeen entraînement contre Sénégal même si était extra mais c'est un jeu vivant le temps day day fixé bu ndaw la c'est li lii pour man c'est des générations yu xamante on peut le travailler tout de suite travailler tout de suite nak moy pas bobu du moment ko actuellement moo ngi lance du jeu non bu lu xaar mu nekk équipe A lance mu dugg deuxième mi-temps gaa naan ki tàngare mu ñëw commencé titulaire mais équipe de France espoir woko ci ren woko nga nga way boy yi de saa yi gëmuñu dara boy yi duñu ay patriote boy yi nangam sangam ëlëk si biir mu demaat gën taxaw bëgg nga ne fa naan non ñëwul France affaire yooyu affaire du compliqué si yow quoi te loolu mënoon na ñàkk loolu rek moo ñu dal sur ce dossier là donc c' est moo ñu dal si ay dossiers yu bëri mais pour comme ko bëgg na te UV yaa ngi ñëw je pense que seen jaay jaag nag ku intelligent la ku am ouverture d' esprit la te dina ko convaincre man loolu moom lu ma gëm la UV yi di ñëw nii ak boy bi nu ma ko waxee te moom gisal na bëtam xam nga tamit eh, dina woo boy bi parce que aussi tamit loo bëgg-bëgg ñi nekk sàmm naa Sénégal. Eh, fu ñu amee niveau ku nekk lance am nga niveau aussi da nga boo nangulee ki nekk génération am na niveau jàmbaar Daaru Salaam ñi fi nekk fii Sénégal am nañu un très bon niveau ñu nangul lenk da ngay nangu yow tamit yow wax très un très bon niveau te mélange force Sénégal ko wax force Sénégal moy bii noy ak ñi judo fi force Sénégal te li final bi Edouard Mendy juddoo judo, mo nous Sénégal Sadio Mané fi la judo mo ba bi donc qu'on arrête et qu'on avance ensemble donc mbokk yi li ma nekkoon vidéo bi ci commentaire yi wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis dem suñu yeneen plateforme bi dooleel ñu bu baax a baax Instagram ak TikTok ba ngeen tapee seen football TV incha allah da gis suñu logo bi jaajëfal naa leen wax leen ba beneen su seen football TV.